14 janvier 2019 14 janvier 2021 mat na ñaari at ba président Macky Sall inauguré TER bi muy train express régionale bi mu nekk inauguration boo xam ne bañ ko amalee ba léegi train bi dawagul mu nekk nag loo xam ne askan wi jàpp nañ ne dañ ko yàkkamti woon ndax ba président Macky Sall di inauguré lu nu mel ñu ngi waajal élection présidentielle yi mu nekk lool ñu bëri dañoo jàpp ne da doon campagne TER bi bokk ci projet phare yu plan Sénégal émergent état bu Sénégal def na ci lu ëpp juróom-benn téeméeri milliards am na sax ñu ne ëpp na ko ndax Ousmane Sonko nee na état bu Sénégal lim ci def ëpp na junni milliards yu teg ñaar téeméer. ci diggante boo xam ne 36 kilomètres la Dakar ba Diamniadio loolee nag état bu Sénégal li tax mu taxawal ko moo di yombal dem beeg dikk bi ci diggante boobu muy tranche bu njëkk bi di 36 kilomètres am na seconde tranche maanaam ñaareel pàcc bi nekk 19 kilomètres diggante ñaajoo ba aéroport international Blaise Diagne train bi nag ñoom nee ñu dina mën a yóbbu lu toll ci téeméeri junni ak fukk ak juróomi nit bés bu yàlla sàkk li nga xam ne nag moom lañ ci def ci koppar la ci ëpp état bu Sénégal da koo leb ca bitim réew.